suñu génnu tey bii nag dañoo toog ñaari ati yàlla di xaar di muñ di déglu te liñ doon xaar ak muñ di déglu li ñu doon wax lépp naax saay di naxi kase ndax dañ ñoo waxoon toog leen dinañ leen fay seeni bati fay leen seen terrain ñu toog di xaar boobu ba léegi lu toll ci ñaari ati yàlla ñii ñu woo leen ñu signé ñii ñu woo leen signé guñ waa terrain yi kenn woowaguñ ko ci ba muy signé ñu toog ba tey ñu wàcce seeni matériel ne dañuy liggéey te loolu d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci suba ñu delluwaat woon nit ñi ne leen kaa leen jël seen seg yi te bati lañ leen fay waxoon leen dañ ciy boole terrain yi te boolewuñ ci benn terrain fii nag kenn du fi jël benn terrain te fayuñu ko kenn du ko fi jël kenn du fi jël tamit seg te fayuñu ñu ba mat soxlawuñu seg yi soxlawuñ ko tey soxlawuñ ko ëllëg soxlawuñu teer bi teer bi ci boppam lañ bëggul mu jaar Sébikotane nax yi dafa yàgg te metti léegi nag ñu ci terrain bi lu ñu am jël ndax pare nañ suñu kër yi suñuy dooma ko moom ñii ñoo ko moom ñii seen i jëkkër ko moom te ñëpp a ngi ci àll bi di liggéey kër yi mayuñu ñu ko dañ koo miite kër gu nekk cent mille cent mille franc a fay miite sa kër kon bu ñu bëggee def kër yi doom dinañ def doomu Sébou Khoutane doom ñu ci dara ah lii ñu def tey nag ñi ngi ci tey ba suba ba ginaa suba ba liñ bëgg ñu am ko président Macky Sall lañ koy déclaré nañ ko ko déclaré woon ak première dame Marème Faye Sall fii ak wuy wuñ ñu rek liñ nekk ñu ngi ci terrain bi. Ah nee nañ ñu dinañ fi ñëw gisuñu kenn préfet jox nañu bis bañ wootante ñu wootewaat ne préfet ñëwul fomm na ñoo gis préfet ñu cee jot mënuñoo gis kenn ku lijjanti suñu problème léegi na ñoo koy lijjantil suñu bopp bisu deedu bisu dund te waa Sébikotane pare nañ pour teer bi jaar seen kaw. Ah